Ameth Diokh Double Moteur ak Gouye Gui bu Djilass Ameth Diokh moo ñu woon gannaaw à domicile la nekk kuy sa papa ñu ne biru Joala doomi mbër jàngil bëre Ameth jël na avertissement Gouye Gui bu Djilass dëkk Diagne Ndong dëkk Madou Mbiga dëkk Djibi dëkk Karamo dëkk Babak dëkk Doudou Niane eh. ay champion yàgg nañ fa jóge Gouye Gui bu Djilass moom lañ jàkkaar lool ale góor de fap ma noona yaa pir der nangel na mais gën juwaale palmarin ñaal xar bay bu ñaal bi daan neex na ngol décembre tubaab la nee le 19 2022 i ndefu mbege a fog jilas i buxadi ndeysaan te gara mara a fulira ame dubul moteur mbaru a gumar Thank you.